waaw man Mbaye fay laa tout man maay directeur général de la CSTP CSTP mooy entreprise bi nga xam ne moo yore travaux de réhabilitation et de rénovation de mise aux normes de l'Estade Lat Dior bu Thiès. bon tey dama leen woowoon pour que rek euh, ma démentir euh, ay wax yoo xam ne ay wax yu dul dëgg la yu maire Pape Diop wax wax ne liggéey bi dafa arrêté et gouvernement Sénégal dafa abandonné. stade Lat Dior bu cees ma bëgg a wax ne rek loolu méngoowul ak dëgg et ma koy ñaan aussi bu beneen yoonee mu woo ma laaj ma wala mu woo ñi nga xam ne ñooy liggéey ci liggéey bi laaj leen ndax jàpp naa ne kilifa la te kilifa daal bala ngay wax nga wax lu la leer moo gën ndax euh, affaire politique politicien yooyu intéressé wu ñun ñun ay technicien lañu kuy politique nga dem politique ca terrain politique ba terrain bi terrain technique la liggéey bi ñu ngi koy def foog naa ñëwoon naa ak yéen ci jamono. xam ngeen ne li li ngeen fekk bokk la leen fekkoon jamono boobu euh, tey jii nii ñu ngi pare nañu lépp luy gros œuvre ñu ngi terminer maintenant terrassement yi ak calcul yi nga xam ne pente terre bi war na koo topp pour que bu ëllëgee bu FIFA ñëwee wala CAF man ko certifié saa am réserve comme ni ñu ko defee woon ci Caroline fay defee ko ci Léopold Sédar Senghor defee ko ci Demba Diop ma bugg wax rek ne. liggéey bi mosul arrêté te xalaatuñu loolu ndax mission bu ñu monsieur le président la république sant ministre du sport sant ko mooy stade Lat Dior na mel comme stade nekk ci réew mi yëpp te stade bi sax moo nar a gan yooyu parce que stade bi gouvernement bi dafa buggoon mu respecté aux normes de la FIFA ba su élégué équipe nationale man fiy joué comme nañu joué Léopold Sédar Senghor mission boobu nag la ñu xam mission bi itam bi ñu ko autorité yooyu joxee waxuñu woon ne Thiès wala beneen dëkk man xamewu ma Thiès mbaa feneen mbaa feneen su ma amee ku may faral sax Thiès lay doon parce que man Thiès sama région la donc kenn mësuma sant loolu lañ ma sant daal mooy na stade bi respecte norme de la FIFA la ca manqué woon wax naa ko gouvernement bi ne ko lii ak lii bu amul du ko mën a respecté gouvernement bi jël na toutes les dispositions nécessaires ministère du sport accepté na loolu agence bi nga xam ne moom lañ dénku liggéey aussi accepté na ko dossier baa ngi DCMP direction centrale des marchés publics directeur DCMP aussi euh, jàpp naa ne Euh, am na sensibilité bu mag a mag mag ci stade Lat Dior bu Thiès mi ngi traité dossier bi normalement ci fan yu néew dina ko valider et bu ko valider ñu mën a signer marché complémentaire yi mën a terminer stade bi ba mu méngoo aux normes internationales. fii ma nag di wax ak yéen commandé nañu système d'arrosage bi nga xam ne gisaguma ko woon ci Sénégal et même ci Afrique de l'Ouest parce que dernière dernière génération la et bu ñu ko installé bu gasoo bi xawee wow tuuti rek moom mooy déclassé boppam arrosé boppam sànni ay laas. mu am saaru robot boo xam ne mooy dox ci digg bi di ko di dox di ko def yaakaar naa ne bés bu ñëwee ba ma waat leen fii moom ma wax loolu dina am tuuti problème psychologique parce que moom bu ma laajoon ma wax ko li li fi gouvernement bi prévoir foog naa du waxee noonu ñun nag euh, politique ñu intéressé wuñu moom bu buggee politique na dem ci terrain politique waxee ko foofu mais fii moom waxu technique la bu buggatee information rek nañu laaj ñu wax ko parce que loolu moo gën ndax suñu nga délai moom kenn mënu ko koo wax parce que bala ngay wax délai bi day tey. marché boobu nga xam ne mu nga DCMP ñu approuvé ko parce que marché bi mooy fixe délai yi comme marché boobu génnagul bés bu génnee moom dina fixe délai yi dinaa leen waat bu fii ne leen bi génn na nangam lañ wax te bu fa ba yàlla délai boobu du dañ. ci firnde suñu fekkoon ne signé nañu délai bi. waaw juróom mi weer ci kanam jàpp juróom bi ni weer dinaa leen jox seen stade su boobaa comme ni ma ko defee woon ci Léopold Sédar Senghor defe ko ci Caroline Faye bu bu bu Mbour defe ko ci Amadou Bari defe def ko tey ci Alassane Djigo te di ko defe ci Tëngéej di ko defee ci yoof di ko def ci toutes les états du Sénégal parce que CCP yàlla dafa dogal mu nekk entreprise boo xam ne dafa dem wuti xam-xam boobu ba mokkal ko xam ko li ñuy def lambatuwuñ ko lu ñu jàng ba mokkal ko la su ma tëddee bu 4 heures du matin nga wax ma ma ne la lii ak lii buñ ko defee jam na ñooy. parce que boo xoolee suñu sarta bi pant bi nga xool ñaata fan lañ ko defal nga dem ci ñeneen ñi laaj leen sarpant ñaata lañ koy defal moo xam ne ñun lambatuwuñu sarpant bi bokk na ci sarpant yu gën a ci Sénégal. teeru dañ koy importer parce que tero bi amul fii amul ci région de Thiès daaw dañ koy wëri ci booru Ndakaaru ak feneen ak feneen fii ba jiwaal lu ñu am rek dajale indi eh, voilà am nañu mocc teere bi yaakaar ne balaa yegg ñu mën a matal lu ci des donc euh, gas nañu aussi ñaari forage yoo xam ne parce que jàpp nañ ne direction état du am doole boobu forage yooyu mooy remplir bassin bi bassin bi sane ko ci pompe yi pompe bi arrosé ko dina tax sarse yi nga xam ne moom la état bi war fay bu weer deewee mën a wàññeeku ci côté personnel bi ak ci côté yeneen ak yeneen li ma bëgg a waxaat rek euh, leneen mooy gason bi nag gason bu mucc ayib lay doon wante kenn du ko mën a surcharger surcharger mooy jël nawetaan di fi jouer dix matchs par jour impossible bii daal jàpp naa ne bu ñu weesee ñaari matchs par jour ba pare di ko noppal au moins ñetti fan ci biir semaine bi bu ko defee day yàqu parce que bëggul loolu gason a haute compétition la mën na am nawetaan waaye lu ñu organiser la programmer ko ñun technicien ñu wax leen ñaata suur lañ ci man a def ñu respecté loolu respecté entretien bi respecté engrais yi ak produit yi ñu fiy def sàmm ko dina yàgg lool mais su fekkee defuñu loolu nag lu xew ñoom la bu subaa. Pape job li mu wax diffamation la te bu ko continuer ma yónnee ko huissier pour laaj lu tax mu wax loolu parce que man du ma nangu mukk ci àdduna yàq sama jëru entreprise bi te li mu wax daf maa laal moom état bi lay waxal. waaye laal na ma te waruma laal parce que man bon sama xarit la xamante nañ bu baax a baax sama liggéey mooy tabax stade bi mission bi ma nguur gi jox mooy naa ko def bu mu mel ni stade Sénégal yëpp su ne nguur gi dafa san stade Lat Dior de ma fiy liggéey mi ngi may laal te war ma laal donc maa ngi koy ñaan en tant que Thiessois en tant que xarit mu am retenu su amatee information bu mu soxla mu laaj ma ko man waaye bu mu gis ñu buntu yi xamul lu xew parce que borom bi ci biti doo xam ñu ngi liggéey ci biir parce que ñun wa ñu may képp parce que lii bu fekkente ne ko ñëw dugg bu yeggee ñëpp xam lu ñu def man ko liggéey bi ñun ñoo fay wut ay suñuy étudier ko bugguñu ñëpp gis ko bugg ñëpp xam ko dañ koy tëj di liggéey pour que suñu secret boobu ñu man ko garder mën nañ ko ubbil ku nekk donc moom bu bëgg a tekki man su ma wooyee am na sama téléphone la ma woo su ma wooyee laaj ma ma wax ko lu ci nekk moo gan mu attaqué ñu di ñu wax loo xam ne dëgg. normalement conformément au planning. day euh, par rapport à cela, je, je à dire les travaux bien avant même la, la validation des marché. Donc les travaux se déroulent normalement. Donc la toiture que vous voyez a été réabilité Le mur bahut et la grille de protection sont faites. Euh, l'aménagement la, des vestiaires se déroule dans les règles de l'art. Et ici au niveau au niveau l'air de l'aire de jeu qui est en gazon synthétique, ce qui est en gazon naturel, c'est ce qui euh, l'option qu'on a fait pour, euh, pour changer un peu, pouvoir euh, suppléer euh, le stade de Léopold Sartre Senghor. Euh, le ministère l'a fait exprès uniquement pour se conformer aux normes de la FIFA, pour pouvoir recevoir ici des matchs internationaux au niveau de, de Thiès. Donc les travaux se déroulent normalement. Les travaux de, de planimétrie et se font dans les règles de l'art. Euh, on a réalisé déjà la mise en place sur 20 cm de, de la terre végétale. on est en train de mettre la le, le, terreau et les engrais ainsi que le traitement phytosanitaire. Donc euh, on a réalisé deux forages pour avoir la maîtrise de l'eau. Comme vous le savez, le gazon naturel euh, a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour cette raison qu'on a fait euh, deux forages et une, une, bâche à eau de 132 mètres cubes. Il est aussi euh, prévu la mise en place d'un arrosage automatique avec des arroseurs de longue portée et un enrouleur central. ce qui permet d'avoir un niveau euh, d'arrosage correct et euh, le lancement de ces, de ces, de ces arroseurs d'une façon très automatique. Une fois que le sol se sent sec, les arroseurs font se déclencher automatiquement sans personne. Donc ça, ce sont les, euh, les niveaux d'éclairement qui sont, qui sont demandés par la FIFA. les délais d'exécution sont respectés, mais je, si vous voyez qu'il y a un peu de lenteur, c'est parce que le, sur le marché de base, il y avait des omissions. Au niveau, à ce niveau, il, les, la hauteur des mâts était prévue pour 25 mètres, alors que les normes de FIFA demandent 40, 40 mètres. Euh, au niveau de, de, de, de l'engazonnement, la superficie a augmenté. Euh, et il y a des manquements qui étaient notés, notamment la peinture. notamment les, le système de vidéosurveillance, et cela a demandé un marché complémentaire. Comme ce n'était pas validé, c'était seulement c'est ça qui bloquait un peu l'évolution des commandes. Mais actuellement, le ministère a donné son vœu ainsi que l'agence, et les dossiers sont en cours, et incessamment, les, ces, ces commandes seront faites. de, de manque de je ne crois pas, parce que nous, euh, le ministère descend souvent sur le terrain pour des visites de chantier. Tous les gens qui travaillent ici, ce sont des gens de Thiès. On n'a pas recruté une seule personne de Dakar. Tous, tous les ouvriers sont de Thiès. Et les gens viennent régulièrement à des réunions de chantier. Donc moi, je crois que la communication est bonne. Maintenant, il y des bonnes et les mauvaises intentions parce qu'il il paraît qu'il y a un maire de la ville qui a dit que les travaux se sont arrêtés depuis longtemps. Moi, j'ai dit que ça, c'est totalement faux. Parce que moi, je viens régulièrement à Thiès. Toutes les semaines, je suis là pour superviser l'évolution des travaux. Parce que ce qui est très, très important sur ce, ce, ce, ce terrain-là, c'est la planimétrie qui doit être conforme aux normes de la FIFA. Donc, il y a une équipe de topographes qui est sur place et moi, je euh, les semaines. Donc, ya euh, n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais eu d'arrêt. Les travaux se déroulent normalement et régulièrement.